dëgg la baay ja nga xam ne mooy sa baay nag yaay ja xam ne ñoo si yaay lañ hmm. cee def mooy dañu laa war a ñaan rek waaye hmm. wañ sa loxo nag ba indil la ko leneen hmm. loolu day tax doom ji la jubbu dëgg la ndax boo amee doom ba ko tudd si la la Pape Dieng nga koy tuddee boo mu ba la Pape Dieng jubbuwut doom ji da mën laa ñàkk jubbu dëgg la waaw donc comme noonu nag léegi muñal rek ñaanaat yeneen doom incha allah bu ñëwee yàlla na nga am uh, koo mën a tuddee sab sëriñ amiin yaa rabbal aalamiin sukkuraan ci laaj bu am solo li ñu ngi la ciy jaajëfal baax mbokk mi salaamaaleykum salaamualeykum bisimilah kooku déggantewut ak ñun day woote ci beneen dëkk wala fu génn ndakaaru day am tuuti décalance bu ñëwaatee na bàyyi téléphone bi tey déglu ci rajo bi far di ko goro ku nekk ne maa koy jël te naa sama goro ba xaadimam jaxate naa ko irkan lay ndeysaan mbokk bëgg bokk asalaamaaleykum ah, wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah yaaram sëñ bi maa ngi rafetlu émission bi jërëjëf man la Ismaïla Sarr maa ngi dëkk fii Wokam ci avion waaw koy Sarr naka waa Wokam waaw ah, ñu ngi sant yàlla bu baax bismillah waaw ah, dafa am ma bëggoon leerlu si daara ji waaw ah, man béykat laa woon waaw mais dama seetlu jamono bu njëkk hmm. eh, borom kër ay surga hmm. léegi bu amee surga hmm. léegi boo ñëwee eh, pour nawet bi dañ lay dañ lay jox tool ba pare jox la jiwu. Mhm. léegi bu ñu la joxee jiw boo bu ngeen euh, commencé si nawet bi. Mhm. léegi surga bi xam nga moom bu xëyee day pëyal borom kër gi. Mhm. bu ngoonee moom mu gontal boppam. waaw léegi bu ñu demee ba nawet bi jeex. léegi borom kër gi day seet li mu ko joxoon ci jiwu gerte. barigo bu nekk mu tegal ko si juróom fukki kilo. léegi borom kër gi léegi léegi day feeku barigo bu nekk léegi mu teg ci juróom fukki kilo mhm. en même temps aussi ngooñ bi ngooñ bi nga xam ne surga bi moo ko moomoon mhm. borom kër gi moo koy jël ndeysaan léegi nag ma doon leer daal si lu yàgg laa lay wax nag mhm. ma doon leer daal si daara ji Mhm. loolu ndax eh, lislaam nangu na ko woon wala déet. d'accord asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu jëf ci laajam bu am solo boobu. mbokk mi ngi tudd Soda Mbaye mu nga fële ci Gibraltar di ànd ak ñun jotaay. ñu ngi koy nuyu baax soxna Soda di nuyu sëñ Malick <laughs> kebe kebe boobu mbokk mi nee na oustaz day laaj daal ci wàllu mbay lay laaj xam naa bi muy wax sax mi ngi lay fàttali tool ya. Mhm. nee na ñaare surga yi dañuy xëyal seen njaati gi gontal seen bopp. Mhm. buñ demee ba eh, lool li jot. ñu ñëw nag ca séddoo mbay maak taxawaay yi nga xam ne moo ci am muy laaj ba xam loolu nan la ko lislaam gisee. waaw léeg-léeg da nit ñi leb leblante ci jiw hmm. nu dul noonu. Hmm. léeg-léeg ñu jënd gerte ak jàmbur te béyagu ko. Hmm. kon ki nga xam ne day bay dañoo war ko bu ñu ko lebalee jiw mu xam ne dañ koo lebal téeméeri kilo. buy fay mu fay téeméeri kilo. bu ñu ko lebalee xaalis buy fay mu fay xaalis. amaana jënd gerte gu ñoragut. Hmm. loolu léeg la ñuy def ko ba nëpp jëlaale ngooñ ma. Hmm. am na ci yoo xam ne daal wax dëgg yàlla du noonu. Hmm. nit ki daal buy bay si nañ ko lebal bërigoob gerte. ñoo xam ne bërigoob gerte bi nangam lay jar. bu bayee ba noppi nga fay bërigoob gerte. waaye bërigoob gerte nag ak juróom fukki kilo. juróom fukki kilo ci tege. ah loolu moom euh, dëgganu te woon caa tege. dëgg la waaw. kon kuy leb lebal xaalis. wala nga leb gerte. Hmm. booy fay ginnaaw xaalis nga leboon fayal xaalis. Hmm. booy fay ginnaaw gerte nga leboon fayal gerte. Hmm. waaye nag fayal lu tal ni la nga leboon. wallahu taala alam wa shukran. jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tontu ci dugg bu am solo boobu wala tontu lu am solo loolu ñu ngi koy jaajëfal mi nu jonn ba te ñaar fukki simili ak juróom-ñaar asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa bisimilah bisimilah. Oustaz ñoo ngi sant bu baax a baax. alhamdulilah ñu Omar Ndiaye na ngeen def. sant yàlla bu baax waaye yéen ngi ci jàmm naka noppalu yi. waaw alhamdulilah dégg nga maa ngi ci <laughs> loolu nga ma waxoon kay. <laughs> waaw wax dëgg wax dëgg. alhamdulilah bisimilah bisimilah. ñoo ngi sant bu baax. jërëjëf xam nga ñu ngi a déggante kay. waaw ñu ngi ziare oustaz di ko masaw ci sonn yi. jërëjëf jërëjëf. di jël ci tay ñàkkoon jot gi la rek ba ñu ba léegi mun ñu wax ba déggante. dëgg la dëgg la ko. dëgg la ba fekk ngeen réew mi ci jàmm ak waa réew mi. waaw am nañ jàmm ba ñëpp. alhamdulilah ana ñoom Pape Ndiogo gaa yëpp rek. Pape Ndiogo ñu ngi si jàmm Pape Mor Ndiogo mi doon déggante ba ci démb. jërëjëf ñu ngi koy nuyu moom itam bu baax a baax. yéen yéen ziar wér a baax. ndeysaan ndeysaan su ne ziare rek xam naa loolu di ziare yëpp daal ñu ngi leen di ziare. jërëjëf jërëjëf. ndax amuñu laaj waaye moom yàlla na yàlla defal leen jàmm daal. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. bu leen fàtte si bu leen fàtte allah bu ñu fàtteente dégg jërëjëf Ndeye Camara ko nuyu jërëjëf jërëjëf baax na jërëjëf macha allah jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax euh, Omar Ndiaye oustaz di soppee Sud FM diaspora moom it ñëwoon ci jotaay bi sopp nañ ko tabarakallahu mbokk mi ngi tudd Moustapha Sall ma nga ca Mbour Sud FM di <laughs> ànd ak ñun jotaay bi ndeysaan moom da doon am soxna oustaz bërki démb waaw gis naa ko ci fa tey de ne ko jot na de xanaa ñu ñaanal ko rek waaye jot na sëkk de xanaa saa mbuur kon jërëjëf yal na yàlla barkeel. wala saa njàmbur. tubaarkàlla <laughs> jërëjëf. macha allah asalaamualeykum. salaamualeykum. bisimilah. kooku déggantewut ak ñun ñu ngi koy jéggalu di xaar keneen ci ginnaawam. di xaar keneen kii mu nga tudd Ndeye Ramata Diop ma nga fële ca Seew xaay di ànd ak jërëjëf euh, min wi jot na ba te ñaar fukki simili juróom-ñeent kii ñëw bu ñëwee ñu dalal ko. del baat ba moo jëblu wan dem tuubi ndeyam di jooy mu naa ka tuubi ruubi Seex Babakar Cergaan sëriñ moon maane mhm. lambaay ñi ko daane assalaamu aleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah bismillah waaw ñu ngi siyaar bu wér a wér na yàlla nangu siyaar waaw allahumma teewlu émission bi de ko rafetlu. jërëjëf jërëjëf. waaye kon dama woon ñaari laaj xaw ma ñett daal. bisimilah. waaw dafa am benn jour. Mhm. maa ngi déglu waxtaanu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane. waaw mu ne ñoom seen jamono. Mhm. maanaam bi ñu nekkee ndaw quoi. Mhm. bu ñu saan toog di waxtaan. foo rek mag mu la romb gàggati la. waaw ndeysaan. benn jour ma toog samay ak xarit ñuy waxtaan. Mhm. boo commencé werante ci wàllu diine. Mhm. mais jour boobu mag mu romb arrêté ko. Mhm. loo ko laaj mun la booy xaw ma. affaire boobu jaaxal ma daal. te ci biir waxtaan bi dinaa indi tamit liñ doon werante. muy lan. maanaam ki nga xamante ni dafa judd doon jullit. màgg par ndeyam ak baayam ñëpp doon jullit. te moom mu màgg soppeeku. ba nekk borom ñaari tur yi. Hmm. est-ce que kooku bu faatoo ci loolu dañ ko war a sàgg dañ ko war a jullee. d'accord dañ ko war a ñaanal. d'accord loolu laa bëggoon teewal. jërëjëf mu ñëwal ma tamit si kii mag ñi nga xam te ne si daal jamono jii ak jamono ji wute na ci daal. Hmm, hmm. ok loolu laa doon laaj. jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey rafetlu dugam ba am solo boobu. Mor Seck mu nga fa la ca Jogo nee na di ànd ak ñun jotaay bi. Mm, ñu ngi koy nuyu sëñ Mor jërëjëf nuyu ñu waa Jogo mbokk mi neen daal deggoon goon Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum mm, ndeysaan mu baax ma doon wax ne daal ba jamono di baax loolu wolof la koy faral di wax mm-hmm. bu aw ndaw réeree ci penc mi ci diine mag mu leen romb mën na leen a gàggandi. neen nag moom mu dund expérience bi ndax dañ doon waxtaan ci ndax borom ñaari tur yi maanaam góor jigéen euh, bu faatoo manees na ko jullee sangu ko yu demee noonu muy laaj ba xam oustaz góor jigéen bu faatoo moom nan la ko lislaam gisi xanaa ka koy jullee mhm. mu bañ a doon ilimaanu ratib mhm. moo ko xaruñoo yem mhm. imaamu ratib du leen jullee wallaay du dëgg duñ leen suulee ca ca sëgi jullit yi nañ leen suul ci buntu armel ya mhm. mbaa ñu sul leen ca roq ba ca koñ ba mhm. waaw mhm. am nañu wax sax ne bu ñu leen dee suul bu ñu leen yaru nañ leen lonk akub rato wala lonk leen ko bant waaw ñu takk leen ci buum di diir yi loolu na waaw yu daal am nañu ko ca wax yoo xam ne nun leen ko ci du nun ko ci junje ndeysaan waaye su ko ran ci laajam bi jërëjëf nee na nee na taxawaayu mag ñeeg yooyu nag waaw penc mi nag xam nga suñ bàkkee hmm. bu njëkk nit ñi dañ doon jàng daanaka jàngi daa xew bu jàngi xewee nag gàgganti gone dutul am mhm. waaye bu njëkk jigéen sax daa ko fekk ci yëfi muy gàgganti la dëgg la du xam nga xaar bee ma jàgg waaw ndeysaan dégg naa ñu naan ko ajaa xaar lañ koy faral di wooyee ak kooku ñuy ko wax ja nan ndax day jaal mbaay kon déedéet kan defe naa noonu waaw jaal mbaay waaw bu dee mbaay de moom laa ci dañuy way hmm. nga dégg ñuy wax laxdar yu ci biir way ya waaw dañ ko jàngoon waaw ndeysaan dañ koo jàngoon hmm. waaye su fekkee ne léegi jàng ma amatul. Hmm. léegi yooyu du du du ko ci mën a dugal. du toog ko ci mën a def. ci lu wér mag ñi nag loolu dafa masalan kupp am mag mu man laa gàgganti. Hmm. Hmm. bu njëkk dangay am sa doom muy jàng ci tubaab wala ñu mu jàng yooyu. nga mën na ko kaay nga jàng. tiim ko muy jàng li muy jàng. waaye nogay tey mun a gàgganti doom. demal jàng rek la koy wax de. mu neexee xale mu nekk fa di wax lu ko neex. mu jóg jotee mu jóg dem tëri. wallaay. wa sukran ci laaj bu solo bi. macha allah jërëjëf Oustaz ci tontu lu solo li mbokk mi asalaamaaleykum. waaleykum wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. ñu laaj ma jox la waaw. moom laaj. bisimilah jox ma. salaam soxna si. sëñ ñoo ngi sant bu baax a baax. maa ngi ma ne daa am lu ma doon bëgg laaj oustaz. waaw. man yàlla daf maa nattoo. Hmm. su may liggéey. Hmm. wala may togg damay sikkar. Hmm. dama mos a déglu ci youtube bi benn oustaz ni jigéen buy tudd yàlla day am bàkkaar. loolu jiital ma nag. d'accord. waaw loolu laay laaj man daal damay sikkar rek. baax na oustaz dana ci ñëw léegi. jëf ñu ngi koy jaajëfal tey rafet lu duggam bu am solo boobu. mbokk mi mu ngi tudd ah, ndongali alaaji Pape Ba ma nga ca Thiès di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy nuyu baax di nuyu waa Thiès yëpp rafet lu ànd gi. Mhm. Eh, mbokk mi nee na moom soxna si oustaz ñaare day sikkar. Mhm. mu déggoon nag am benn jàngalekat bu waxoon ne daal. jigéen moom si kar yooyu taamuwuñ ko ci moom muy laaj ba xam loolu nu ko lislaam gisee. waaw man li ma ko dégg daa bëriwul nag. Mhm. waaw loo dégg lan. jigéen ju si day am bàkkaar. <laughs> li nga ko dégg bëriwul. bëriwul de. waaw dëgg yàlla xanaa kay lañ ko cere xay na mooy yëkkati baatam ca kaw. Mhm. ci kanam ñoo xam ne nangam nangam. Mhm. waaye day sikkar rek. waaye kantir kantiru ko kenn. Mhm. léegi mu des ndax day sikkar yëkkati baat ba ca kaw. wala day di ko jël mbir wala ñoom seen yooyu. loolu nag su boobaa léegi wàcc su baatam ndax li xaam nga teel nañ ko ko. Euh, teer nañ ko tam noddu ga. boo si ko ci laaj bu am solo bi. ci tontu lu am solo li soxna si jëf ñu ngi lay jaajëfal di xaar keneen ci ginnaawam. ba mu selmalee la tàbbi gaal nga jëm ndar di sama ndaayam jant ba weeru badar ba weeru badar asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum bismillah bismillah salaamaaleykum Ah, ñu jéggalu ko xaar keneen ci ginnaawam. xaar keneen ci ginnaawam mbokk mi ngi tudd Alpha Diallo Alpha Diallo vice président Ali Imran mi ngi ànd ak jotaay allah Diallo ñu ngi lay baax a baax di nuyu waa Ali Imran yëpp di xaar keneen ci ginnaawam. la Seex Bamba fanaani Ndar géej duse jalaañoo cib dënam bambaay géej bambaay géej duse jalaañoo cib dënam bambaay géej ila nabi wajatu qablu fi dari maaxat kafaan yàlla yi daa kalkadri nee na keroog. kalkadri asalaamualeykum. waaleykum salaam. yaaram naam. ñu ngi yàlla nangu siyaar. alhamdulilah Sud FM la. waaw Sud FM la seen rajo. alhamdulilah. bisimilah. Euh, oustaz. mi ngi lay dégg. waxtaan bi fi jaar léegi muy waaj di laaj wàll gerte gi yu mel noonu. waaw. ñun de foofu suñu dëkk. si Casamance. góor gi ñuy wax Aliou Ndaw moom boo ñëwee day xool juróom fukki kilo gerte jox la. bu nawet bu wàccee nga tolluwaat juróom fukki kilo gerte teg fa. boo ñëwee jël bu sa morom ñëwee jël. waaye moom daal du lebal gerte ñeent junne wala wala kilo wala kilo juróom fukki lu lu kenn waa waaw jërëjëf. jërëjëf jërëjëf ci seede yo am solo yooyu ñu ngi koy jaajëfal baax te rafet lu duggam bu am solo boobu mbokk mi ngi tudd Sidi Seck mu nga ci of nag di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf ñu ngi koy nuyu tey rafet lu àndin wi eh, mbokk mi de oustaz da doon indi ay seede rek ci liñ doon waxtaane léegi ci wàllu woowu di wàllu mbay meeg yooyu mu joxe misaal ci seen dëkk koo xam ne moom day leble gerte waaye kenn ku ne lim la lebar rek lu toll noonu ngay fay noonu rek la war a demee mhm. waaw góor ko jërëjëf ci seede mhm. mhm. ci wàllu ñu dalal ko asalaamaaleykum salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah bisimilah. Baye Dramé Sarr. waaw kay jërëjëf Sarr. ñu ngi leen siyaare bu baax a baax di leen ñaan a jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. di leen ñaanal ngeen yàgg fi lool te ànd ak wér. amiin amiin. di leen safar wi yal na la yàlla màggal kaw. amiin amiin. parce que di ñaanal sama goro suñu tëdd yàlla ko yàlla yërëm te jéggal ko. amiin yaa rabbal aalamiin. siyaare sama sëriñ Alaaji Ba Jawar sa caare waalo jërëjëf jërëjëf di leen ñaanal bu baax a baax a baax jërëjëf jërëjëf lu am na solo lool ñu ngi leen di na si gëj a dugg gi bu baax parce que maa ngi li da wax waaw ñi ñi def seen si ba du maa maa jot seen jërëjëf jërëjëf waaye ñu leen a bu baax a baax a baax jërëjëf yàlla yàlla yokk wér gi amin amin barke Ndiol Màkka sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu mbokk mi Marème Ndiir la tudd ma nga ca Amérique di ànd ñun jotaay bi ñu ngi koy nuyu soxna Marème Ndiir jërëjëf mbokk mi ay ñaan la indi ak rafetlu jotaay bi oustaz ñu ngi koy jaloo ñaan yi lum ñaan yàlla na nangu ci nun suñu ñaan ci moom nangu amin yaa rabbal alamin mi ngoog ñu xaar keneen ci ginnaawam ma nga ne di ñëw minu jot na ba teg ñeen fukki simili euh, bu ñëwee ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum bismillah Hadj. waaw waaw El Hadj Pam waaw. Sall waay Sall Ngaari. ak <laughs> ah, Silla ngi nuyu oustaz jërëjëf mi ngi lay fay. di amaan mbégte ak euh, jërëjëf. ñu ngi nuyu oustaz Alioune Mbaye ak oustaz Momar. ñu ngi lay fay ñoom ñëpp. di nuyu Serigne euh, ko dégg moom tamit comme ni ko waxee sànq. ndeysaan. ñu ngi dégg oustaz yu ko laajte. waaw. di am yaakaar ne rek jàmm la. waaw yal na nekk jàmm. Ah, amiin amiin. Mhm. la suñu président soppe Sud FM diaspora Pape Mor Diaw. ñu mhm. suñu xarit aussi Omar Ndiaye moomu génn sànq. Mhm, ndeysaan. ak ñoom Adja Ndeye ñoom ñëpp daal ñoom El Hadj Rosé. ñoom El Hadj ñoom waaw jigéen ñëpp daal. ndeysaan. ñu teg ko ci loxo soxna Ndeye Camara mu jàllale. Mhm. dañoo xaw a sakkan macha allah. Mhm. ñu bëggee lim ñëpp day metti. Mhm. ñu ngi nuyu aussi sa xarit euh, DG Ousmane Gueye. DG waaw ndeysaan maa ngi koy nuyu bu baax. ak euh, El ah, bi ma doon indi tey. waaw. mooy comme xew-xew jamono ni mu xewee léegi ak affaire dem Màkka yi. ñi nga xam ne dañuy nekk lu mat ay fanweeri nit bokk ne dañuy teg. pour dem màkka te màkka benn yoon la ci at mi te bu jotee kenn mooy dem donc nga xam ne kon kii war a mujj dina toog ñetti fanweeri at borom bala moo dem ah may laaj loolu lan la ci lislaam wax ndax yàlla rek a xam parce que mën ngaa teg aussi dem balaa sa tuur ñeneen jot doo xëy na doo amati loo tegee wala keneen du ko fekk may laaj loolu ci lislaam wax beneen bi mooy que kii sëy ki nekk ci sëy daal muy mhm. góor si wala jigéen ki mhm. di wax ak keneen naa ko ah man de sama sëy dafa tas fekk sëyam bu euh, tasul daal mhm. ndax loolu dañ li ñuy wax ne euh, fase moom du lu ñuy war lu ñuy café daal ndax loolu day sax euh, fase bi foofu wala déet daal d'accord fekkee ne comprendre nga li ma wax waaw comprendre naa li nga wax baax a baax waaw loolu loolu moo doon loolu moo doon question maa ngi nuyu suma suma mag yi nag Adja Mariama Dramé ak Adja Ndeye Dramé jërëjëf ak Malick Dramé ak El Balo Sall ak sama oustaz ñetti mbaar yooyu seen xarit yooyu di leen seen soppe. macha allah. waaw ñu ngi ma doon yóbbante seen ki nag ci oustaz. jërëjëf ndeysaan. imaamu ñetti mbaar ñooy imaam Dame Kayre Jamil Kayre ak Ibrahima Diané ak oustaz Daouda Diallo. Mhm. baax na ko ñu wàccee foofu kàddu yi di wax wa salaatu wa salaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf jërëjëf Sall alaaji Pam joogu ñu ngi koy nuyu tey rafetlu duggam bu am solo boobu. mi mi ngi tudd Andala Sall mu nga fële ca Kaffrine nee na di ànd ak ñun jotaay bi. Andala ñu ngi koy nuyu Sall Andala it ñu ngi lay nuyu yow itam ay dara mbokk mi nee na oustaz euh, sëñ Pam Njoogu euh, ñii dañuy natt ngir dem Màkka. buñ matee fanweeri nit. te at mu jot benn billet la ñuy am mu war a diire fanweeri at nee na loolu moom lu ko lislaam gisee. dakoo tere. Mhm. lislaam li mu bëgg foofu mooy. ñu def ko fii sabilillah. fanweer nit lañ. ñaar fukki nit lañ balu ko ëpp. bu ñu tegee kenn dem aji màkk. moom ma dem. amilul kenn bor. amatul obligation di natt. bu ko neexee mën naa bàyyi bu ko neexee mën naa bàyyi. Mhm. bu ñu ko tegee foofu dagan na. Mhm. waaye su fekkee ki dem màkk daa amee ñëpp bor. Mhm. kii mujjee dem ba muy tuut. la yàlla xam doy na moo tax lislaam day tere boobu bi mhm. muy nangu rek mooy boo xam ne fii sa bi lañ koy def mhm. buñ xasee teg ba kenn dem am bu ko neexee bàyyi mhm. amatul bor kenn su boobaa boobu moom dagan na dëgg la wa sukkuraan jëf ñu ngi koy jaajëfal te di la bégee nee na itam euh, ñaare koo xamante ne dañ koy laaj euh, ab sëyam mu naan sama sëy ba de tas na maanaam di wax ne divorcé na te fekk divorcé wut tam dégg ñu ne fase kenn du ko kafe lool nu ko lislaam gisee ah, daa fen rek tas taxul ba tas daa fen sëy bu tas moom fase naa la moo koy tas mhm. wala fay alal ah. mhm. moo koy yooyu koy tas mhm. waaye nag fase naa man amatuma jëkk rek dañ maa fase ñoom seen yooyu loolu daa fen rek wala taala alam wa shukran jërëjëf tontu lu am solo li asalaamaaleykum wa rahmatullah salaam alhamdulilah euh, Oustaz ñoo waaw jërëjëf jërëjëf waaw yaa mhm. man de dama dama amoon benn laaj bu mu bëggoon laaj. jërëjëf. maanaam mhm. faratay jàpp ak faratay julli. waaw yooyu laa bëggoon nga leeral ma si. faratay jàpp ak faratay julli. waaw. d'accord. ok jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy nuyu baax a baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu. mbokk mi nga tudd Daouda Fall ma nga fële ca Thiès di ànd ak ñu jotaay bi. jërëjëf sëñ Daouda ñu ngi koy jaajëfal baax a baax di nuyu waa Thiès nee na faratay njàpp ak faratay julli la bëgg nga ñëwal ko ci. <laughs> waaw faratay njàpp di moom. Mhm. ca la yéene bokk. Mhm. ragg say loxo ca la bokk. Mhm. masaa sa bopp ca la bokk. sëlmu ca la bokk ragg say tànk ca la bokk. ndeysaan. ak bomb ak gaaw mhm. juróom-ñaaru daal ci farata yi jàpp jàpp nañ ko ci wa mhm. shukran ndeysaan jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal oustaz euh, euh, tey rafet lu duggam boobu 88 628 98 98 asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Mbacke maa ngi ziar bu baax yal na yàlla nangu siyaar la Ahmed Sarr Ahmed Sarr ñooy siyaar baax ñu ngi ziar bu baax gi déggante gi ci sëy maa ngi ziar Seydina Aliou jërëjëf saar jërëjëf waaw ah, dama doon laaj hmm. ñaar inna allazina amanu wa amilu salihati kaanat lahum jannatu firdawsi feneen fa wa man kaana yarju liqaa rabbi falyaxmal amalan saalihan fa lay xam ne imaalu saalihat mu nga fa te jannatul firdawsi la wax feneen fa liqaa rabbi diggante firdawsi ak liqaa rabbi bi bu bëggoon amee ci leeralal d'accord waaw ñu ngi ziar bu baax. jërëjëf jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal tey rafetlu duggam bu am solo boobu. kii mi nga tudd El Hadj Ndiogo Guèye ma nga fële ca table Tiwaawan di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf sëñ Ahmad Sarr Oustaz nee na inna alladina amanu wa amilu salihaati kaanat lahum jannatul firdawsi nusula. Mhm. loolu la bëgg nga ko ci. jërëjëf sunu borom day wax foofu ay teraanga yumu dencal. Mhm. alladina amanu wa amilu salihaati. Mhm. ñi ko gëm tey def lu baax mhm. dafa am lu leen dencal mooy jannatul firdawsi leen dencal mhm. waaye nag nusul la nusul nusul mhm. nusul mooy nusul mooy booy door a wàcc liñ lay gàttandoo ah. <laughs> nusul mooy booy door a wàcc liñ lay gàttandoo nga ci salle d'attente bi wala toog euh, toog añ bi ñëw waaw ñu indi dara ñu indi dara waaw def mën naa mu nekk entrée wala yu nu noonu waaw <laughs> tey wa shukran ci laaj maam Salaam barkalla jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal eh, beneen bi mu ci teg it ñoo xaw a nuroo nee na faman yaamal eh, faman kaan yarju liqa rabbihi falyamal amalan saaliha xam naa li ko ci dugal mooy fee inna lasina amanu wa amilu saalihaat fii falyamal amalan saaliha waaw mm-hmm. ki fii mm. yarju liqa rabbihi mm-hmm. ku wóor na da nga sa borom mm. falyamal amalan saaliha nay def lu mm-hmm. ne ko def lu baax mu ne mooy def te yàlla tax te dëppale ko la ko yonent ba jàngalee mhm. sallallahu alayhi wa sallam fa man kaana yarju liqaa rabbi mhm. fal yaamal amalan saaliha mhm. wala yushrik bi ibadati rabbi ahada muy muy surut xabalil amal ndeysaan waaw tey def lu baax te dëppale ko na ko yonent bi jàngale woon wa shukran ci la ba am solo jërëjëf ci tontoom lu am solo loolu min wi jot na ba teg ñeent fukki simili ak juróom-ñett 47 mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah Oustaz Mbacke. waaw. waaw siyaar na ngeen defal coono yi. waaw alhamdulilah. alhamdulilah. ñoo ngi siyaar bu baax di nuyu waa cellule Aali Imran Yëmbal yëpp. bi. Mhm. di jégalu ci géej dugg bi ak gëj a gisante bi yëpp. Mhm, jërëjëf. waaw man Oustaz laa bëggoon mu firi laa ma fil kabat bi daal man daal ba mu mu ma ko fi ba mu ko firee ba léegi damay kabat kabat yi rek. Mhm. ba si dimanche sax damay kabat nekk si li mhm. waaw moom laa bëggoon daal fil kabat bi daal. su fekkee mën nañ nañ kaa firiwaat beneen firi bu xaw a wàññeeku quoi ndax moom fil kabat bi volume la doon si man. waaw damay kabat kabati rek loolu la amoon naa lu may laaj. yaaraale seen ali jërëjëf. Mm-hmm. macha ñu ngi rafetlu duggam bu am solo boobu te di ko ndokkeel. mbokk mi ngi tudd Galaye Sall mi ngi ci Grand Dakar di ànd mbokk mi nee na fii Kabadine ñaare bu ñu lay ubbil jotaay bi ne la naka àdduna ak coono yi nga ne ñoo ngi fi rek ndax la xadd xalax na insaana fii Kabadine mm-hmm. nee na daal fii kabat jooju la bëgg nga ñëwal ko ci. waaw fii Kabadine de mooy suñu mbàkkee. Mm-hmm. doomu aadama la yàlla mooñe sonn. ku bëgg a nopp lu tàmbalee sonn bu sonn bu raw. Mhm. bi nga xam ne boo sonnoon doo ko sonn. fii kabat mhm. loolooy mu kaabada mhm. mooy nit day sonn mhm. sonn pour am teraanga sonn pour am teraanga yu ëllëg dëgg la sonn pour am euh, loo teral say bokk ah? sonn pour am loo mën a sàmmi sa ngor fii kabat lu rek lay tekki léegi nag kon kabat-kabat nag mooy yow tam bu fekkee mën ngaa sonn te ndax nga am ci dara a ah, sonn rek bu noppal joote na nga noppalu tubaarkàlla dëgg la wa shukran ci laajam bu am solo macha allah jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo li ñoo ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax kii imaam Assane Cissé Seck la tudd nee na oustaz man raa min ko munkaran la bëgg nga tekkil ko ko <laughs> nee na munkaran daal la bëgg nga ñëwal ko ci waaw dëgg la xam naa daa fekk keroog suñu jotaay ba waaw ca parcelle daara yi sëñ Modou Guèye <laughs> ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal waaw jëg la tubaarkàlla mm-hmm. euh, dama na koon mm-hmm. nañ ma may ma tëwil mm-hmm. addis bi. ndeysaan. ginnaaw daanañ ko firee. Hmm. man raa ku gis min kum ci yéen mun karal lu ñu sib. Hmm. fa li xayru bi yadi. Hmm. ma ne ko tey nag nañ ma may ma tëwil ko. ndeysaan mu aj ma ne man raa képp ku gis. min kum ci yéen. mun karan daara ju àggagut. fa li xayru bi yadi na ko àggaleeg loxoom. ndeysaan <laughs> cey. dégg man kaana képp ku gis. mun karan daara ju dong ngay di xiif. Hmm. <laughs> fa lu xayru bi dina indi saa koy ceeb. ndeysaan est que. waaw lu laa ko lu laa ko doon tëwiili. <laughs> est-ce fa il la mestati. Hmm. su ko su munta àggale daara ji. Hmm. mun na indi saa koy ceeb. fa bi lisaan yi na wax. ndeysaan na reetee daara ji. na waxtaan ak. homme d'affaires yi mhm. ak ñi am mhm. ñu def ko ca ndeysaan fa ilmi stati su mënul loolu mhm. ah fa bi xal bi mu am yéene ndeysaan wa shukran ci laajum bam sa tontu lu am solo li imaam Assane ñu ngi nuyu mi nu jot na ba teg juróom fukki simili eh, asalaamaaleykum wa rahmatullah wa rahmatullah waaw yaara waaw ñu ngi siyaar demoon naa vraiment ñëwaat hmm. waaw dama watoon leen ñaari laaj rek waaw eh, dafa am par exemple ñi nga xam te dañuy julli jël seen loxo teg ko seen dënn hmm. loolu laa bëggoon oustaz loolu ma si ak euh, damay déglu tamit benn oustaz bu ko doon wax daal mu ne ñi nga xam te ni dañuy sol tubay tubay romb seen dojoor la xaw hmm. yomal xiyaam dañ koy lakk loolu laa bëggoon hmm. oustaz ñëwal ma si ndax tubay yi war na ko dépassé wala waru ko dépassé ak ñi jël seen loxo di ko rek seen dënn yeneen bi da ko doon def wala d'accord merci jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal tey rafetlu duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di Alioune Ba mu nga fële ca caajaay di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf Omar. macha allah jërëjëf oustaz euh, mbokk mi de ci wàllu julli euh, di xabdu lay wax maam jël ñaari loxo teg ko ci ab dënn nan la ko yonent saa sallam jàngale woon jërëjëf ci laaju maam sala bi mm-hmm. alayhi salaatu salaam de dañoo nekk ca julli ga mm-hmm. am ku jiital loxo ndeyjoor ba fab bu càmmoñ ba teg ca mm-hmm. mu fekk ko fi mu taxaw mu jël buy càmmooñ ba jiital mm-hmm. fab bu ndeyjoor ba teg ca ne ko lii ñu digal ñun yonent yi mm-hmm. waaw mm-hmm. moo tax euh, borom xam-xam yi di def noonu am ñuy def noonu ñenn ñi di wàcce seen loxo waaye man laa waxoon waa rek mooy ñaar yi boo ciy def ñu damay wàcce ma ne ko nañu wuti maag yow koo xam ne kii du wàcce du aj ñu waxtaan moom ba muy wàcc mbaa muy aj waaw te maag yow ñu bañ a werante mu ne ma aj Mhm. wa shukran ci laaj jërëjëf ci tontu lu am solo loolu ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey bëgg ci ànd gi muy ànd ak ñun jotaay bi koste mhm. ko waaxu mate deeg bu yaama keroog la ci bël bu romb boo wallaay ndeysaan ñu ngi koy jaajëfal ma ngi cee jësaawu sàkkoor ba di nettali fa sëriñ bu mag bi jaaroon asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah alhamdulilah Baye Dramé naka mu ñu bu baax bisimilah waaw li may laaj mooy pour maanaam boo fekkee ñu julli timis hmm. nga fekk ñu rawal a benn rakk hmm, hmm. léegi ñetti ñetti toogaay yooyu ñetti toogaay yooyu léegi laa wax d'accord baa nañu ñu ngi koy jaajëfal bu baax bàyyi dara mais tey rafet bu am solo boobu mbokk mi mi ngi tudd Sayar Kan taalifkat la ma nga fële ca Kolobaan di ànd ak ñun jotaay jërëjëf sëñ Sayar mbokk mi ci wàllu julli timis lay wax ku ñëw fekk ñu rawee ko benn rakka wala ñaare rakka nga xamante ne day fekkee rakk bu mujj ba toog ak ñoom mm-hmm. jugaat ñëw muy ñaareelu rakkaam mu war a toogaat mm-hmm. jugaat ñëw muy ñetteelu rakkaam julli ga war a jeex mu war a toogaat nee na mm-hmm. julli gépp daa am ay toog toog muy laaj loolu nu ko lislaam gisee dara no lislaam def ne noonu lañ ko war a defee lislaam def ne nu lañ ko war a defee yokk yokkoo ci julli gi dara danga toog bi nga amee bi fekk imaam di toog nga am sa deuxième rakka da ngay toog troisième da toog taaya mhm. l'islam ma ko ci daal mhm. nun nga ko war a rek masha allah wa shukran ci laaj mbaam solo jërëjëf oustaz ci tontu li kii Modou Marème Niang la tudd oustaz mhm. di sa doom ju nekk fële ca euh, ca euh, ca fan ca ca Hollande waaye nee na ñëw na senegal mu ngi lay déglu di ànd ak yow jotaay bi ñoo ngi koy bëgg baax baax di bëgg waa Hollande rawatina suñu mbokk moom la Sidi Mbaye ak euh, suñu turandoo wa oustaz Alioune Sall <laughs> foofu ca Hollande waaw <laughs> tubarkàlla jërëjëf sëñ Modou kon ñoo ngi bëgg ci topp topp gi ñu xaar keneen sa bamba naa ko ndaw du balam saamaan léemu ko buusu buusu géej day saawaan day saawaan day saawaan Baye Moussa Gueye jërëjëf asalaamaaleykum waaleykum salaam wa bismillah sax Mbàkke si la waaw waaw yaaram mbedd mi de sëñ bi bari na loolu tey ñëpp kenn ko yaa ngi safar mais xoolal ku mel ne Sëriñ Tuubaa fi mu jaaroon ci diggam ak julli tey julli day tey te tey bari koo yendu ci di julli wenn wax tey yëpp lañuy màggal Sëriñ Tuubaa <laughs> da ngaa gis ñu yendu tey te julliwuñ yéegi dama ne nii safar tey ji ay xale yoo xam ne tey ko jëm julli ko la mhm. ko mu julli ci géej gi loole bëgg naa ko ci andi ay leer bu baax a baax d'accord taalakan la kër gu mag Njaay dem jërëjëf <laughs> jërëjëf ñu ngi koy nuyu baax tey rafetlu dugam bu am solo boobu. mbokk mi ngi tudd Dieye ma nga nekk fële ca euh, Tëngéej nekk ca nga xam ne ñooy seetal mbedd yeeg penc mhm. mm. ñu ngi koy jaajëfal baax sëñ Mayoro Fall jërëjëf ñu ngi koy nuyu mbokk mi day sëñ Talla Kane ngi noonu Oustaz tubarkalla nee na mm. de gars yi dañu ne ci waajtaay yi di safar ak demee noonu xëy na ba sàgg ne julli mu bëgg nga waxaataan ak ñoom ci solo si julli am ak ni ko sëriñ bi fonke woo. waaw xam naa ab soññ la ci ñoom ndax fàttali na ne. Mhm. julli jaraloon na ko julli ci géej gi. Mhm. ku mel noonu nag koo xam ne kii da nga koy defal dara hmm. wala mu fekk lu muy liggéeylu mhm. julli jot koo ko continuer liggéey hmm. mun ne ko yàqal li nga ma liggéeyloon hmm. di waxtu yu jot ku mel noonu ku koy defal yu mel noonu bu julli jotee war ngaa mën ne acci leen julli bu ngeen noppee delluwaat ci léegi dëgg la wa sukkuraan macha allah ñu ngi koy jaajëfal te di ko ndokkeel 88 628 98 98 asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah kii honorable député la de. <laughs> monsieur Mor Niang Mor Niang bu Mbacke honorable na nga def. maa ngi leen ziar. man de xam naa xam naa xaw ma sa mandat bi kañ lay jeex <laughs> ah waaw. san gis na ba léegi honorable député. <laughs> léegi day vice président de la République ak directeur général bu Sud FM. est-ce que <laughs> ngi lay nuyu Sane. jaxal naaw ñoo ngi lay fay kay. di nuyu waa Touba Mbacke yëpp di leen ñaanal jàmm. jërëjëf jërëjëf. ñaan yàlla ñuy sàmm borom ba dolli jàmm ba pare te taal ko ci biir réew. amiin yaa rabbal aalamiin. di sant yàlla bu baax nag. jërëjëf. li ñu doon séntu yëpp egg na ci jàmm. jërëjëf. ñu ngi leen gërëm tamit bu baax. tubaarkalla xam naa li ma koy tënk daal man eh, islam. Hmm. mu gis diine jàmm la. Hmm. te nit ñi bëgg fitna lool mu jaaxal ma. Hmm. ma ko doon laaj ustaas ndax eh, gis naa Abdourahman ibnu Awf. bi muy gàddaay. am na alayhi salaatu wasalaam bàyyi woon na fi ay milliards yu bari. Eh, islam jaraloon ko mu génn ak avec des mains maanaam génn yóbbaale wu dërëm. may laaj ndax ñun taxawalaay googu ñooñu amoon bu njëkk ñun dañu ko amatul léegi wala ñun africain yi daal mun daal jaxal na ma de. Mhm, ndeysaan moom laa bëggoon a barkeelu rek ndax. bi muy génn de dañ ne ko frontière moom booy dem doo yóbbu dërëm. Mhm. la neexee nag nga toog. Mhm. yor sa xaalis waaye doo génn yóbbu mu gedd bàyyi fa lépp dem ak loxo kese. kon lislaam jaraloon na ko lu ne. ndeysaan kon léegi ñun ñii nag dañuy lekk ba rek yore milliards ci banque bi mais daal suñu ngëm yàlla daal laa gis ne taxawalaay manqué na. jërëjëf. jërëjëf honorable Mor Niang bu Mbacke Bari ñu ngi koy nuyu. ñu ngi koy bëggee mbokk mi tudd Modou Mbacke Ndoye ma nga ca Touba nee na di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf Ndoye ñu ngi koy bëggee baax baax sëñ Mor Niang de na day misaal ca sahabatul kiram ya mhm. dañ daan am alal lool waaye ndeysaan ànd ak yonent bi ak dundal diine jaral leen ñu demak loxoy kefe mhm. muy mu koy mm, nattale ak ñun ak suñ taxawaay suñ digganteeg alal. waaw xam nga suñ Mbacke. naam xaalatil arabu aman naa lu ca tege. xul mhm. lam tu'minu. xul lam ngeen. mu ne gëmu leen de. Mm-hmm. da ngeen di sóob. da di sóob waaw. <laughs> léegi nag gëmu leen ko ko ngeen di sóob. Mm-hmm. dafa bokk ca gëm ya. Mm-hmm. jukko ju ñu tuddee Ithaar. dëgg la dëgg la. Ithaar mooy duutoo xëccoo. lu waay xëcc. doo xëcc da koy bàyyi ak loola. saadu bi mu wax nii. ker ba mu agsee Madina. ba yonent ba boole kook koog Abdurahman ibn Awf ñoom ñaar. bañ leen seexalee. Mm-hmm. Saadu daf ne Abdourahman mu naa ah, mu ne ko Madina gi maa fi ëpp alal mm-hmm. damaa bëgg ñu séddoo lii ma am ndeysaan mu ne ko déedéet yàlla na yàlla la wax ma fi seen marché bi nekk rek jeex na allahu akbar waaw ñoom nun la ñu meloon jàngale am xëy jeex na maanaam xëy yoroo dara dem ak loxoy kese de yàgg na fi dëggat waaw mu jeex tàkk <laughs> waaye waaye kim yebal ca marché ba mm-hmm. muy Abdourahman ibn Awf nee na moom dafa dem ba mu yàgg mu defee ne xeer bu mu yëkkati for ab dërëm ca suuf ndax ndax liggéey barkeel mhm. léegi nag nun foofu la nu kii atul léegi da kopp koppal rek di yor mhm. koo mhm. romb lu mu xiif xiif doo ko ci dimbale toj sa kër terrassaat ba ci yàgg nga tojaat yëkkatiwaat yàgg nga karlewaat tojaat fii rek waaye xaay moom nga jëm cee jàmm yàlla ci ki kii daanaka duñ ko def ci penc bi moo tax itaar googu moo nu manqué waaw boo sukkuroon ci laaj ba am solo bi macha allah jërëjëf oustaz ci tontu la solo loolu ñoo ngi ciy bégte di leen jaajëfal bu baax a da yàlla buur ba faral taal tam xarit may na ko gaayi mbàkke bi xidmatil xadimi lil maqdoomi fil bari la daam wesar jamboti yoonu géej galaay bëgg a wax ñu xam ne bambaay géej waaw tabarkallahu maam Moussa Ka moo doon bind loolu tabarkalla sëñ Moussa Gueye bu ndar di ko nena doganan dem gi wolof nasran wate kon billahi ñëpp dem niiraan Matar Ndoye ma nga ca jokkal production di ànd ñun jotaay bi nee na nelaw gut di dagu seef yi uuri faf nasraanu Pape Sey ma nga fële ci université bu Ndar di ànd ñun jotaay moom tam nelaw gut nasraan fi xaar yi ñee di yii doomi soxna dali sa njinde géey ak yaafaatu ña ci tabla tiwaawoon wa ña ci tiwaawoon pël ngeen baal ma ñoom ñaar ñëpp kenn nelawugu ci caaw ndaw jaxasoo bamba rafet ak caaw kii ne ko ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillah Oustaz Mbàkke ñu ngi lay nuyu di la ziar jërëjëf xuma ni nuyu ustaas bu baax moom tam di ko ziar bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf. ah di rafetlu waxtaan wi amatina solo macha allah. jërëjëf. waaw li ma doon laajte dama doon laaj benn mbokk yóbbante la sax. Hmm. dafa doon laaj eh, lu jëm ci wàllu can. can lay jox ne la yaa ko war a jëfandikoo. Hmm. léegi moom mu ne ndax loolu mën na cee jël eh, baaxe ko ci wàllu lu jëm ci wàllu daara daal. Hmm. par exemple mu ne fii daara la daf ci bëgg a def alalam ndax mën na jël ci loolu barkeeloo ko daal. waaw beneen bi may laaj ci Ali Imran aaya 34. Hmm. rijaalu qawaamuuna ala nisaa ila aqihi daal loolu laa bëggoon. te it may wax oustaz suñu ñaax mbokk sax ni ci màggal gi ñu jëm comme noonu ñu ko waxee. ñu respecté waxtu julli yi ak matale yi nga xamante ne nii. Mhm. moom moom la soxna war a matale ci wàllu colte daal nga xam ne daal euh, comme ku tedd ki sant yàlla la woote. Mhm. te kuy sant dafa am na war a sant daal moom loolu stage ñaax ñaax ñu ci rawatina ñun bokk soxna yi. Mhm. maa ngi leen di ñaanal fanaani jàmm ak salaam. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ci dugg bu am solo boobu ñu ngi koy jaajëfal tey rafetlu duggam bu am solo boobu. alxaaji al oustaz Codé Sock mu nga ca Grand Médine di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi rafetlu ànd gi ak ñun jotaay bi ndey di ko bége. Mhm. Eh, soxna si de oustaz ñu ngi koy jaajëfal ci duggam bu am solo boobu arrijaalu xawwaamuuna ala nisaa yi moom la doon wax nga ñëwal ko ci. lay ndeysaan sunu borom def ne. Hmm. góor ñi ñoo war a taxawu jigéen ñi. Hmm. arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa mhm. góor ñi ñoo war a taxawu jigéen ñi mhm. ci li baat bi ëmbaale lépp nag bi kulli maanal kalima qawwaamuuna mhm. ñoo leen war a yar ñoo leen war a yor ñoo leen war a dëkkal ñoo leen war a dëkkoo ñoo leen war a muñal ñoo leen war a uuf qawwaamuuna ala nisaa ndax sunu borom nee na néew doole gi mu def ci jigéen la la manqué ca doole ja la def ci góor est-ce que. kon bu mu ko di jaay dolli mukk ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa mhm. moo tax mu bëgg ñu taxawu leen mhm. taxawu boo xam ne dana tax seen rongañ fer mhm. waaw buñ buñ gisul bàyyi gisuñ yaay it ñu gis jëkkër ju taxaw tabarakàlla wa shukran ci laaj bu am solo bi macha allah jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo li nee na bëgg na itam nga e, soññi waale soxna yi ak góor ñi yëpp nag taxawaay yi nga xamante ne war nañ koo am ci bisi xew yi bisi màggal yeeg e, yu yu ni mel waaw ci di bàyyi waale xel farata yi sëriñ ba dinaa woote hmm. ne nañ ko sant la yàlla ñu ne ko bu ñëwee nu ñuy def mu ne ngeen ñëw ñëwin wu rafet hmm. ngeen accès hmm. ngeen jàngal xuraan ñu jël tuyaaba jox yonent bi sallallahu ngeen jàng xasaayit mm-hmm. ngeen berndeel gan ñi mm-hmm. joxe lekk mm-hmm. joxe naan joxe fur wi teralante nee na loolu la bëgg ñu def ko loolu na ko koy def ku nekk da nga ciy boole yéene xol bu rafet ak sellal koog fexe ba nag la nga xam ne mooy say farata dara bañ la caa faat nag Mm-hmm. mooy sukkuraan ci laajam bu am solo bi ndeysaan jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax tey lu dugam bu am solo boobu di xaar keneen ci ginnaawam daa am na ko nekk nii ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah juuf waaw Diouf normal la waaw sëñ normal waaye lay dalaay jàmm rek ak Alioune Mbaye jërëjëf jërëjëf bi ñaanal suñu baay ba yàlla na ko yàlla xare àjjana amiin amiin ak waajur yi jiitu yëpp amiin yaa rabbal aalamiin maanaam dafa am lu ma bëggoon a laaj. waaw. barki dem rek dama gis benn waaye mu muy muy wax mu ni. Hmm. yomal xiyaam kenn mënul fa kenn dara kenn mënut a dugal kenn waaw. léegi rek sama yaram tàng rek man dama daal fëgg sama dënn. waaw daal ko ne ana Aliou misbati baynil wara. waaw aboo imaam may ni kiraamin lan nag man nag loolu laa ne woon dinaa xaar Aliou Sall ba mu ñëw. <laughs> <laughs> mu waxal ma foofu ba xam <laughs> ñun ñu tudd Aliou. Hmm. ñu ñun dañ fay am wala ñëpp la. wala boog wala boog fi dama firil foofu daal. Mhm. dama ko ne woon daal Aliou Sall rek a appui. xam naa ne ñàkkul mu ngi ñuy mhm. maa ngi jégalu nag. jërëjëf. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu. mbokk mi ngi tudd Alxaaji Mouhamadou Amine Sène ma nga ca Ndóomóor di ànd ak ñun jotaay bi. Mm-hmm. jërëjëf Alxaaji Mouhamad ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Mm-hmm. sëñ Diouf normal a ngi noonu Oustaz uh, indi na bayit woowu Imaam Ali waxoon muy laaj ba xam moom mi ko wax uh, maa ngi ci doon xam sax Ali la tudd moom. <laughs> Uh, nee na daal loolu noo ko gisee yow. waaw ñu ma gisee de mooy. Seydina Ali la am ku ne woon daal bëgg xeex ak mm-hmm. ñu taxaw ñoom ñaar ku nekk di wax yow yaay kan ci la ko Seydina Ali waxoon nii ne ko man maay Aliou maay gaynde gi mhm. waaw maay gaynde gi mhm. léegi ci la ko Aliou waxee loolu léegi nag xeex ba daa metti woon ba yu gañe ko mhm. bi ko Aliou gañee yonent bi sallallahu ne ko ah sa ngoon lii day ñu bari ci xeet bi xaj nañ ci léegi nag lu indi léegi nit mënul kenn yowmal xiyaam dara kañuy mënal foofu dara dañ ko koy defal fii kañuy mënal foofu dara dañ koy defal fii mhm. dañ koy fexe ba mu mën a topp ndigal mën a bàyyi tere mhm. képp koo xam ne kii bu man fexe nañ ba nga mën a topp ndigal mën a bàyyi tere mhm. soo demee foofa liñ la defal fii moo lay fekk foofa problème bi kay mooy dem ba foofa door a tàmbali looloo jafe waaw loolu rek la nit ñi lu lañ ciy jublu waaye jubluwuñ ci ne ab sëriñ du jariñ dara jubluwuñ ko ci jàngalekat du jëriñ dara yarkat du jëriñ dara jubluwuñ ci loolu liñ ci jublu mooy nit daal boo ko bëggee defal foofa dara fexeel bu fii mu mën a def ndigal bàyyi tere rek mhm. képp ko man ñaar yooyu suñ bàkkee mhm. léegi lu luñ du fa ceew fële rek mën nga ko am insha allah mhm. koo xam ne ki nag bu la digalee doo def bu la tere doo bàyyi ah tabarakallah fama tanfahum shafaatu shafiin fama lam an tazkiratu muridin wa shukran ci laajam bu am solo boobu masha allah ci tontu lu am solo loolu ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax te di la ndokkeel asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakaatu Oustaz Mbacke alaaji Pam Mor alhaaji Oustaz Mbacke Sylla wax lay ziar jërëjëf jërëjëf def mbaa yéen ci jàmm alhamdulilah ñu ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah ñoo ngi nuyu Oustaz Alioune Sall bu baax a baax di ko ziar ko wàcce mhm, jërëjëf ñu ngi leen di nuyu di leen rafetlu seen jotaay bi bu baax a baax a baax mhm, jërëjëf waaw ñoo ngi nuyu Oustaz Alioune Mbaye mi ngi lay fay mi ngi lay fay bu baax. ñoo ngi nuyu Alaaji Pape Ndiob Sall moom génn noonu ñoo ngi koy déglu bu baax kontaan nañ ci nuyoo bi. waa sopp Sud FM diaspora ñëpp ñu ngi leen di nuyu. jërëjëf jërëjëf Diaw. góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Mhm. ak soxna Ndeye Camara sëñ Amar Ndiaye moomu génn noonu ñu ngi koy nuyu bu baax. Mhm. Ah, soxna Jukku si soxna nuyu nañ ko soxna Oumou Khayri ñoom ñëpp nuyu nañ leen. Mhm. waaw ñu yóbbaale ñu ci des soxna Joma soxna Xadi Mbay ñoom ñëpp nuyu nañ leen. Mm-hmm. ak Alaaji ah, Dooro si la nuyu nañ ko moom tamit. sëñ Babacar Diaw ñoom ah, ngi laaj oustaz tuuti rek. Mm-hmm. ah ci sóoratu Ali Imran. waaw. istas'aluuna mm-hmm. wa laa ta'luuna alaa ahadin. wa rasuulu yad'uukum fii uxraakum. fii uxraakum. Ah, fa asaabakum xaban bi xamin. après après ñaari laaj bi mooy. Mm. mu leeral ñu julli fajar ak julli suba. Mhm. waaw mu leeral ñu ko bu baax a baax a baax. d'accord diggante julli fajar ak julli suba. d'accord. waaw di am rek di di leen nuyu di leen ziar bu baax. jërëjëf. di nuyu ñëpp. asalaamaaleykum wa wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu sëñ paam Mor jaw ca Japon. ñu ngi koy nuyu baax baax ci mu mbokk mi ngi tudd Oustaz Songe eh, gëj nañu ko séen na ca jàkkaarloo. bi mhm. eh, di ànd ak ñun jotaay bi <laughs> Oustaz philosophe la. jërëjëf ñu ngi koy nuyu baax a baax eh, Songe Oustaz tey bëgg ci duggam boobu. ak message am boobu El Hadj Pape Mor Diaw ci alxuraan la dem Oustaz suratu Ali Imran. du sori aaya 153 suma juumut id tusiduuna wala talwuuna ala ahadin wa rasulu yadcuukum fi uxraakum fa ataabakum xamman bi xammin likay laa taazanu ala ma faatakum wala ma adaabakum wallahu xabirun bi ma ngi jàngale eh, kero bañ nekkee ca xare mhm. gaañi mhm. tàmbali daw mhm. ba ñu tàmbalee daw kenn du gestu sa morom war rasulu jàmbaar ja yaduukum fi uxraakum ma nga ci seen ginnaaw di leen woo ana nabiyun la kazib ana ibnu abdul mutalib ñëw leen man maay yónent bi ah, nag loola la suñu borom di jàngale foofu nag nee na njàqare yi tegaloo nag kenn ku nekk talatulul sa bakkan yónent bi boote nag ana nabiyun la kazib ana ibnu abdul mutalib mbooloo ma tàmbali siwaat di ko fekk siwaat fi mu nekk mhm. mu récupéraat xare ba ñu door a ñibbi mhm. ba su koran ci laajam ba am solo allah jërëjëf ci tontu la am solo ñu ngi koy jaajëfal nee na diggante suba ak fajar la bëgg nga teqantaral ko ñaari julli yooyu waaw jërëjëf dafa am julli gu jox julli fajar mhm. mooy bu ñu salaatoo bu dégg ñu ne asalaatu xayru mina mi mooy julli fajar jot na par exemple tey ci fajar gi ñu jëm nii saa bu cinq jotee ba teg cinquante minutes salaatu jot na mhm. cinquante minutes bu ñu salaatoo bu ñu toogee dix huit minutes mhm. jàpp dix neuf jàpp vingt wala ba vingt cinq mhm. ñu daal di julli nag julli ko ñu julli nag mooy julli suba buñ salaatoo ñaar rakka yi mooy fajar buñ jullee fajar ba noppi lañ cay teg mooy julli suba moo tax ñaar rakkay fajar yu ku yaa koy defal sa bopp julli suba gi nag imaam mooy jiite julli ñaar rakka rakka bu nekk faatiha ku saar euh, loolu mooy julli suba gi bu mu njëkk def nag lu lay julleg fajar wallahu taala alam wa shukran ci laaj mu am solo ndeysaan jërëjëf ñu ngi koy jaajëful bu baax a baax tey rafetlu euh, duggam bu am solo boobu euh, tontul euh, soxna si duggoon te ma tëboon ko defe naa soxna xumma la da doon wax ne oustaz ci wàllu can ndax jigéen ji ñu may ak canam mën na caa jël maye joxe nit mu barkeelum ne ko daal may la lii wala waaw moo ko moom mhm. ak can sunu borom tam wa aatu nisaa saduqaatihinna nihla mhm. teg ca fa intib mhm. can gi jigéen jee ko mhm. su baree moom lañ koy jox su néew lañ koy jox moom nag su ko neexoon alxuraan ko neexoon ci bu ca can ga may kiñ ko may ko neexee jël ci joxe ci daara wala lan ko neexee jël joxe ca daara ja mbaa ca ca école ba wala ca teen ba moo xam daal moom daal ginnaaw moo ko moom lu ko neex def ca mhm. waaw mhm. loolu alxuraan jàngale ne boo may jigéen may gu njëkk ma mu tibb ca mayaat la lekkal mhm. aada nag moo koy coow mu coow ko tàntam coow ko waaye daal moom moo ko moom fu ko neex na ko fa dugal wallahu taala alam wa shukran macha allah jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo loolu ñu ngi koy jaajëfal bu baax dese nañ fukki minute ak juróom daanaka ngir yëkkati jotaay bi ñu wéy di leen xaar la wax sëriñ Baye Gueye sëriñ Mamour Fall laaya jee la wax ca saaru lan faal isa laqitumul lasina kafaru wéy leen bu leen dellu gannaaw fal tasbiro ne na keroog njëlamu mu doom ràmbal jibril a yor ma nga ca Ziguinchor di ànd ak ñun jotaay bi nee la wugut fas wa bambaay fardu nee na ba mu du ñaanee kokki kii Amadou Dia la tudd ma nga fële ca nee na di ànd jotaay bi ak Demba fay tabarkal ca Sabadola yàlla xaatimante naa ak moom laaya isaa la xëytu fi àttan ni kaaya Ousseynou Dieng ma nga ca kër Cheikh nee na di ànd ak ñun jotaay bi waaye mbokk mi ne daa bëgg bokk xaj Mbàkke ne ko ci jotaay bi rek asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi jéggul maa boobu waaw tey sama xarit di sama Oustaz Saliou Mbaye ci waajur bi nga xam moo fi jógoon di ko ñaan su borom teeru ko saabal ko ci àjjana yi nga xam moo gën a kawe hmm. di nuyu waa réseau de yëpp ak waa Kopp yëpp yéen yëpp daal noo ngi leen ñaanal baax a baax bis bi daal yàlla na ko foog a gàmm ak a gàmm te lépp lu ci ngërëmal yàlla li gërëmal yoon ak loolu sëriñ Tuubaa ñu am ko ci jërëjëf taala la bu jul la ñu ngi koy bëggee bu baax te di ko jaajëfal bu baax a baax une heure jot na ba teg fukki simili ak ñett ñu xaar keneen. mbokk mi Alaaji Seck la tudd euh, Alaaji Seck ma nga euh, ma nga fële ca Ziguinchor ak Tidiane ak Baro ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak ñoo ngi leen di nuyu ñoom waa Casamance yëpp. yoolu ji fi naari alayla wal israara fi la keroog la Seex Bamba fi naa ndar geej Joor Ndaw ma nga fële ca uh, Grand Yoff ca CTO di ànd ak ñun jotaay bi. bambaay géej du see jalaañoo ci dënam géej. Pape Camara mi ngi fële ca cité comico Samba Ndiir ma nga ci daaru Cubb di ànd ak ñun jotaay bi. maaxir kafaan yàlla yi daal gàllkat yi nee na keroog. sëñ Mbacke nan la ñu def ci minute mi ngi toll fukki simili ak juróom 88 la 628 98 98. kama sabaru ulul lañ fa xaati bante bàmbaay mbër mu daldi jaari karamen xuraysin ngir la mu càllaloo ca xuraysin sax bamba jul fa ñaaru raka ñaan fa boromam ngërëmal njool màkk keroog la taalib xasid asiiru ca maama adlam sëriñ basiiru lay ndeysaan mbokk mi daa bokk nee ko ñu dalal ko asalaamaaleykum waaleykum yaaram. ñu ngi lay ziar jërëjëf yal yàlla nangu ziar. yaa si jaamu. amiin yaa rabbal alamin. la war a andil ji la. ah foo toll. ah maa ngi si yoon bisimilah. <laughs> bisimilah. maa ngi ci jàmm bu baax a ñu ngi ci jàmm bu baax alhamdulilah. Ah, xarit la. waaw kay Assane naka waa kër Babou Ngone. ah ñu ngi ñu ngi bu baax. alhamdulilah. ñoo ngi rafetlu jotaay bi. jërëjëf. di di la wax ne ñu ngi leen di topp saa su ne rek. alhamdulilah. di rafetlu xam-xam bi ndax lépp rek yéen a ngi ci dimbale doomu aadama yi. jërëjëf. di ñaan sunu borom fay leen. amiin te yokkal leen ko bu baax a baax rek. amiin yaa rabbal alamin. kontaan nañ ci bu baax. jërëjëf. waaw ñun dañ dañuy rafetlu rek di teewlu saa su nekk. jërëjëf. sama kii mbokk Ousseynou mu ngi leen di teewlu mu ngi leen di siyaar bu baax. jërëjëf. sànq rek ñu ngi jokkoo. allah. di siyaar waa Kër Babou Ngoné yëpp rek. jërëjëf. ak Pa Pape waaw moom moom ku la la. jërëjëf eh, danay teewlu bu baax a baax a baax. macha jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax baax Assane Samb kër Babou Ngone. kër Babou Ngone ñu ngi koy jaar di jaar waa kër Babou Ngone yëpp tabarakallahu mbokk mi mi ngi tudd. mi ngi tudd Mansour Ndiaye euh, Ali Imran di ànd ak mhm. ñun jotaay bi. ndeysaan ñu ngi koy nuyu baax te di ko bégee Modou Mbengue New York moom itam nee na mi ngi lay déglu. ñu ngi koy nuyu ñu xaar keneen. rahmaanu fi safina bi anani qadimu silmadina allamani rahmaanu fi safina bi anani

vraiment Sénégal yëpp mu ngi kontaan réew yëpp mu ngi kontaan. jërëjëf jërëjëf. xam nga ñun dañoo dañoo dañoo échoué rek. Mhm. nga su fekkee su fekkee dañuy jël ah, ci misaal si Massalikul Jinaan. ñu ñu ñu ko liggéeyoo ba ñu dafa yoon ba ba ba fin. rek ñu rek ñu ci dara ba tourné ci dara. Mhm. mu fekkee si sa boobu lañ jëloon. Mhm. li suñ tubaab woon élargissement su fekkee si sa boobu lañ jëloon ba ñu topp yoon o yi xam surtout surtout école euh, kii Oustaz Alioune Sall boobu. Mhm. xam nga yow ba mu maa ngi maa ngi fàttaliku ba muy commencé di def ay émission dafa doon tudd am Mbacke Sylla mais ko ko dañoo dañoo foog rek moom dafa war a Mbacke Sylla comme ni mu waree euh, Nogoy. Mhm. xam nga c'est man damaa foog diggante Mbacke Sylla ku ku ku ku réyal la woon <laughs> ba mu dem ba ci ay ay a yu topp tuuti après nga commencé nag di feeñ di commencé di wax. ndeysaan waaye xam nga yow yow vraiment <laughs> tabaarkalla quoi vraiment vrai journaliste merci. waaye xam nga école école école bi nga génnee journaliste vraiment même ñuy génnee ci Sénégal yàlla na fuuf. <laughs> ndeysaan te loolu liggéey saan euh, oustaz oustaz la. ndeysaan dëgg la. xam nga dañuy dañuy toog lu ma li ñu war a laaj wala lu mu war a des des des lu mu war a des sax. Mhm. yow sax da nga koy loxati wax. ndeysaan dafa mel ni yow nii quoi waaw vraiment vraiment félicitation ko waaw waaw merci merci merci. jëf jërëjëf jërëjëf ba jërëjëf jërëjëf rafet na ñu ngi koy rafet lu duggam bu am solo boobu ak kàddu yu soññe yooyu moo di oustaz. tabaarakallaahu jërëgéen jëf ci ànd beeg ci defem seen rajo. Mhm. Euh, tabaarakallaahu kon kii mi ngi tudd Samba Sène mu ngi fële ci mba mbërin di ànd ak ñun jotaay bi. sëñ Samba ñu ngi lay nuyu di nuyu waa dëkk bi di nuyu soxna yëpp tey bëgg ci ànd bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. waaw ah, Mbacke ah. allo. allo bisimilah ku baax. dama doon laaj oustaz mu ñëw ñu ci axiru zamaan. axiru waaw. waaw yaajuuj ak maajuuj ak. Euh, hmm? baax na jërëjëf danañ ñëw léegi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafet lu duggam bu am solo boobu mbokk bas ñang ma nga fële ca mbuur di ànd ak ñun jotaay bi macha allah ñi ngi rafet lu duggam bu am solo boobu sëñ bas jërëjëf mbokk mi neen dafa bëgg nga ñëwal ko ci aaxiru zaman ak euh, yi nga xam ne moo ci aju yaa jooja ak maa jooja aaxiru zaman de ker bañ ko laajee alayhi salaatu salaam ne ko kañ la bis penc mhm. daf nekk ko doon laaj taniwuma la ci mhm. mu ne ko màndarga yi mhm. ba mu koy limal mandarga yi nag. Mhm. yu baree bari la. waaye ca la boole woon yaajuuj ak maajuuj mhm. ñu di xeet yoo xam ne dañu mën a yàq am mbay. Mhm. mën a yàq économie. mën a yàq ñu ne demee tabaarakallaahu moo tax sunu mbokk ma leen di leen firi eh, <laughs> chinois yeeg japonais yi. bokkar sax mu ji bokkar ndeysaan yàlla yàlla yokk wér. amiin yaa rabbal aalamiin donc yaajuuj si zaman la ñuy ñëw mhm. bu ñëwee nag lu nit bay mën nañ koo yàq mhm. te itam lu nit sol mën nañ koo yàq mhm. wa shukran allah jërëjëf oustaz sëriñ ibrahima fay almaañ jërëjëf mbokk mi asalaamaaleykum waaleykum salaam yàlla nangu ziar soxna si oustaz ziar nañ la bopp jërëjëf jërëjëf ñu koy wax ci kaw. waaw d' accord. loolu na Oustaz fi nga ciy ñëw léegi. wallaay ndeysaan merci ñu ngi koy rafetlu dugam bu am solo boobu. mbokk mi nga tudd Pathé Diop ma nga fële ca Mexe village di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf kii Abdou Seck la téyeer ma nga ci Jurbel ànd ak ñun jotaay bi. macha allah ñu koy nuyu moog waa Martin Dumbe Diop bépp. macha allah eh, soxna si nee na sax lu tax julli jullig ñu koy yalu lu mel ne tisbaar saan waaye jullig guddi daa gis ne dañ koy biral. waaw xam nga sëñ Bakke. Hmm. dafa am lu yonent bi defoon ñu ko tuddee rañaan. sallallahu alayhi wa sallam naam. Jibril jël si ko. Mm-hmm. yóbbu ko ba mu génn àdduna si. Mm-hmm. muy continuer nag. tey. Mm-hmm. lu dëgg. léegi nit kitam tam buy julli. Mm. na yëg ne mi ngi rañaan. mi ngi rañaan. comme àggagul ca paye nag. mën naa wax ci kaw. bu àggee ca paye nag. day wax ci suuf ndax loolu mooy teggin. ginnaaw xas na agsi mhm. mu wax ci suuf mhm. loolu moo indi ñuy biral julli ak ñu di ko yalu dëgg la ci tontu lu am solo li sëñ Xalifa Jóob jërëjëf une heure jot ba teg ñaar fukki simili ak benn wa saahibul buraaxi fi luzoomi wajal masiri misla wa jihaad misla hajjin wa jihaad asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah na nga def naka waa ñu ngi fi ñu ngi sant bu baax ñu leen di ziar di ziar oustaz ak mbokki taalibe yi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. alhamdulilah di ziar ñëpp rek tey fàttali tuuti soññee rek li jëm ci màggal yi wala niy dugg ci laaj yi. waaw. Mhm. ginnaaw loolu ak bu doolaay loolu dañuy dugal ji nuyoo soxna ummi fii ci Rovereto ak hmm. soxna Aji Kebe hmm. sëriñ Mbaykan ca Bolzano ak sëriñ Ngeer ndeysaan xanaa di fàttali nag mbokki chauffeur yi rek ngeen ko daan def ginnaaw ko ñoom ak transporteurs yi tamit ndax hmm. ñoom ñooy soññi chauffeur yi ci di leen sas euh, màggal yu mel ni xew-xew la yoo xam ni li ci ëpp solo moom mooy di liggéeyal sëñ bi liggéeyal sëñ bi nag moom mi ngi bokk ci li sa li la ci war yow mhm. transporteur nga def ka ci mooy def sa wàll mhm. chauffeur bi def ci wàllam mhm. ñëpp dem ci jàmm dellu si ci jàmm ndax liñ ci danti danti danti la woon daaw kenn waxatu lekk nan ko ba mu rees kon li ci li ci war ku nekk li sa wërsëg mën nañ ko def ndànk ndax fitna ji ñuy teg tra ñiy màggali te nu bëgg màggali ci jàmm ak salaam ñu ngi ngay ñaan ngir jëmmi Sëriñ Tuubaa ñu def ko ci dal mm-hmm. dem ci jàmm dellu si ci jàmm ñëpp màggale ci jàmm mm-hmm. ginnaaw loola nag dañuy am laaj bu ñuy laaj sa mooy li nga xam ni am na ko ko doon laaj xaw ma da doon wut lu lut ko digal mm-hmm. mooy loolu mu doon wax noonu ndax dafa xaw am lu xaw a mel ne lu xaw a dal koo xam daf maa jege ci biñ koy waaj a tudd doom ji rek dafa xaw a ay xëccoo ci diggante waajur ak ak ak sama yi waaye nag dama xamul nag loolu dafa xaw kii dafa dafa xaw sensible nag waaye dafa mujj jël décision sama rakk bi daa jël décision rek tudde li mu bëgg tudde moom mhm. ndax daa indi xëccoo si sama waajur la dama mhm. xamul nag loolu def naka nag ba pare sax mu xaw ci am mhm. kii ci xol dal la dal kooku xale bi dal ko ndax dafa am lu lu mu yëg ci xolam loo xam metti naka daal mm-hmm. ndax digganteem ak waajuram ñu nekk suñ ci xalaat ni mën na ko cee fekk mm-hmm. dama xamul nag loolu ci diggante waaye am na lu ko si diine di wax bu beneenee mm-hmm. wala ku mu dalagul nan la ci war a ëllëg ginnaaw loolu it ñuy faat lii dal ci julli des fois daf may dal damay julli rek daal def faat yee des rek daal di daal di daal ci teg lu mel ne naas yi rek naa teg naas léegi bu ci tegee naas moom nu may def ak moom beneen rakkaa bi laa doon d'accord <laughs> jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy nuyu baax alaaji Gaye di wootee fële ca Toronto tabaarakallah kii Modou Mbeng la tudd ma nga fële ca New York di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf ci wàllu tudd doom la doon wax ñaare ki bëgg a tudde doomam kenn ay waajuram taxaw ne na ko tuddee keneen léeg mu indi ay xëccoo nee na indi ay xëccoo de ñaare mhm. waajur moo mu moo indi yëf yi mhm. yow mi nga xam ne dangaa am doom mhm. tuddee ko galaay hmm. galaay am doom bàyyil mu tuddee ko Pape Dieye dëgg la jàmm ñooy jàmm na ñooy hmm. wax di yàlla waaye nga am doom tuddee ko galaay hmm. galaay am doom nga ne ko nag paate nga koy tuddee maanaam maam maam daal yoonam nekku ci tur wi maanaam baay bi moo am àqu tànnal doomam tur nañ ko bàyyi mu tànn doom mu tànn parce que moom doom ji mu dëgg gis nga léeg-léeg suñ mbàkke ci yooyu ci kër waaw dafa indi ak ñol ñol mooy yaay yoo xam ne day wax doom ji ne ko dépense bi sama loxo lay tege déedéet. Mhm. bi sa borom kër di joxe dépense na ko teg sa loxo. ndeysaan. waaye bi sa doom di joxe dépense nag bàyyil mu teg ko ci loxol jabaram. Mhm. jamono ñooy. Mhm. du dëgg. léeg-léeg njëkk lay doon wala ab jigéen boo xam ne bi moom dafa sëy ba tes nga am nga am mag ju góor. muy joxe dépense nga ne ko nag man nga ko jox mbaa nga jox ko sama <laughs> yaay. yàlla. te yow euh, la lépp kenn mënu ko wax. lépp kenn mënu ko wax. <laughs> <laughs> loolu rek lay teg. dëgg la de léeg la ma dégg ndooyu baan di ci xaalu aalu yu métti métti. waaw yàlla ko yàlla yërëm. amiin waaye lu am solo la. amiin yaa rabbal moom daal am nga doom tuddee ko galaay. galaay am na doom bàyyil mu tuddee ko kumba. Mhm. ndeysaan. wala ngeen waxtaan ci ba ba ko convaincre ko. Mhm. loolu rek lay tekki. Mhm. wa shukran ci laaj bu am solo. donc ñu ngi am daanu yàlla incha allah dëgg la dëgg la. Euh, waxtaan daal moo ci gën mhm. yow mi nga xam ne nag yaay yaay maamu xale bi nag mhm. bàyyil mu tànn comme que bëgg a mhm. tuddee wala nga proposé soo ko tuddee woon diw te bañ caa ñu ngi koy rafetlu duggam boobu asalaamaaleykum euh, ci waaw waaw waaw waaw waaw daf ñu xaw a rëcc nag sama ah. waaw looloo tax léegi ñu doon laajte waale tamit. Hmm. lu tax euh, suñu waxtaan ci tawxiid. Hmm. ci suñu borom. Mm. nit ñi du ñuy daanu wala ñu yëg seen bopp. <laughs> te bu fekkee ci nit la wax. Mm. nga gis nit ñi commencé daanu. d' mu xaw ñu yéem ma sama borom kër. jërëjëf doon ci sàkku xel rek. macha allah. am na solo ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu. Pape Camara ma nga fële ca cité comico la di ànd ak ñun jotaay bi photographe la. <laughs> tubarkàlla euh, ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax duggam bu am solo boobu. sëñ Pape euh, mbokk mi euh, day ñu ngi koy jaajëfal mooy soxna si duggoon léegi oustaz dafa laajoon ab laaj waaye biñ ciy tontu nee na da ko rëcc mook borom këram moo laajoon ne lu tax julli yi nga xam ne bëccëg la ñu koy yellu euh, yu guddi yi nag ñu di ko biral waaw xanaa waxaat ko kon ne ko dama ne mm-hmm. mm. ki rañaan di dem ci boroomam mm-hmm. di toppandoo yonent bi alayhi salaam mm-hmm. bu fekkee jógegul ci asamaan yii mën nay wax ci kaw mm-hmm. bu duggee ci yooyu nag mu wax ci suuf moo tax ñuy julli gi ci ñu koy yelu ba ñu mm-hmm. mm-hmm. tontu gone gu laaj laaj bi waaw <laughs> macha allah <laughs> eh, jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal tey xaar keneen tey xaar keneen bu ñëwee ñu jël ko léegi say ñu daal di tàggoo baaxit kafaani addun woo besa tubaab ya naa yàlla gamam gi ñëw na mu mel ni gaay ndeg si bi guub dàngañ na i taxa taxtel muy taxaw Mhm. wallaay ndeysaan euh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw El Hadj Pam Ndiogo. waaw El Hadj allah. waaw mhm. ah, allah sànq damaa fàtte nuyu sama goro yi te goro yi ñoom kenn waru leen a fàtte nuyu. <laughs> ndeysaan waaw loolu jar na dugaat. Ah, waaw ma dama dugaat maa goro yi ak. Euh, <laughs> nga goro yi foo a yi nekk projet nag kon ñu jox leen tur bi ñoom it. macha allah macha allah rafet na. waaw loolu te xam nga yow ci nga ci nga dëgg la kay <laughs> ci goro yi laa bokk de <laughs> kon baax na ñoo kon maa ngi lay fay nuyoo. waaw waaw loolu la. <laughs> jërëjëf jërëjëf. Ah. yow moom goro bu baax nga ku la am ne goro yi du wax dara. waaw dëgg la dëgg la. boo bëggaatee keneen rek wax ma. jërëjëf jërëjëf incha allah. jërëjëf merci. Ah. suñu xarit euh, Amadou Mbodj mi ngi leen nuyu ak Ndiaw Makoto Ndiaye. Mhm, jërëjëf. ak El Hadj jaw ak euh, Serigne Naar Ndiaye. bu pare mhm, ndeysaan. ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ak suñu soxna Oumou Khayri Diallo euh, Suède. Mhm. ak ñoom kay moo sii sa xool ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu. ndeysaan. léegi laaj bi ma laaj comme bis Pape Mor doon ñu war a ci julli fajar bi. waaw ak suba man dama doon laaj yan yan saar ñoo gën am xam nuñ koy nu ko wolof di waxee sax. moom moom la ci gën a taamu daal. pour hmm. koy julli fajar. Hmm. waaw euh, ginnaaw fa ginnaaw Faatiya. Hmm. ah ginnaaw suba euh, Faatiya bi aussi ci suba bi yan saar moo gën a. d' accord moom la ci gën a taamu daal. d' accord jërëjëf ci ñëw léegi. waaw moo doon moo doon moo doon laaj. moo tax ma dellu si waat ak sama goro yi ma fàttee nuyu daal. jërëjëf jërëjëf rafet na. xam naa kon ñu ñu ñu fanaan jàmm rek. Pam mhm. Joogu Oustaz mooy doon suñu auditeur bu mujj ci jotaay bi mooy doon suñu auditeur bu mujj jotaay ñu ngi jaajëfal ñëpp di nuyu suñu mbokk tabarakallah Mamor Dia ci Padoa mhm. di ko ñaanal tawfiix di ko ñaanal sutura ak teraanga ak poche def dara amiin yaa rabbal aalamiin alaaji Pam Joogu ci wàllu julli sax la doon laajaat xam naa ginnaaw faatixa daal Oustaz yan saara gën ci ñu di ko jullee rek ko u jàng leen mhm. maata yassara lu jàppandi mm-hmm. faqarahu jàng leen mm-hmm. maata yassara mm-hmm. lu jàppandi kon foofu daal ki julli mhm. na jàng jàppandi ci moom rek mhm. waaw mhm. ndax buñ ne saar sàngam moo gën a jàppandi te moo ko loo ko problème daal tàmbalee ñëw waaw alxuraan nag def faqaroo maata yassara aliman sa yakun min ko marda nangam nangam waaye su ko ren ci laajam baam solo bi macha allah ak borom yi mu nuyu dëgg la oustaz <laughs> jërëjëf soxna si duggoon léegi dafa doon wax ci wàllu tawxiid oustaz nee na ñaare bu ñuy waxtaan waxtaanu jëm ci yooyu day mel ne nit ñi duñ ko du gis ay jël ak ay daanook ay joxe xaalis te waxtaan yeneen xeeti tam nii mu am loolu. <laughs> waaw léegi. xitaab bi ki yor ki yor wax ji. Hmm. am na loolu bu ko waxee ci tawhid. Hmm. daaneel nit ñi. Hmm. kii wax ci ki muy xam nag moom tam mën naa daaneel nit ñi loolu rek la. waaw. discours def.